rafet bañ a paas ñaaw ñaari paas maa jël ci ginnaaw Touba xombal Bambey Touba Ndiarème màggal gi safar rek. waaw waaw safar ba koy gaañ. gërëm sëñ Touba lii yëpp nag lii yëpp sëñ bi la rek. maa la wax lii oh. gisee leen ko noonu. te xam ne kuñ bind moo tax. barki borom Touba gisee leen ko noonu te xam ne kuñ bind moo tax. ay waay sëñ Touba waay. jay. yow yoroon dara. ma ngi man ngay yàq joxe naa joxe naa fi vingt mille. vingt mille. kon Alioune. salaamaaleykum wa rahmatulah. non Ziz nag vraiment. waaw. barke Serigne Saliou barke Serigne Saliou bari yaa baax. namuñu dara sëñ Touba teral nañu. barke Serigne Saliou. lu góoru yàlla di yor si góor suuf yor nañu. barke Serigne Saliou. barke Cheikhou Khadim. dimbali jaam yi rek ma ci woo lii nii nii. dama bëgg lu ma sëñ bi mosal mu mosal lay. barke Serigne Saliou bari yaa baax. mën a sabar rek. di sabar rek. waaw sëñ Touba rek. ngeen koy toggee rek. barki borom Touba. li sëñ Touba rek ko mën. foto gaaw bi. sëñ Touba rek ko mën màggal gi nee naa leen safar gi am na woote waaye amul xaar. waaw rafet bañ a paas ñaaw ñaari paas màgget ci ginnaaw Touba xombal Bambey Touba Ndiarème. màggal gi safar rek. waaw waaw safar bëggee gaañ. gërë sëñ Touba li yëpp nag li yëpp sëñ bi la rek. la ko noonu. Oh. nga xam ne kun bind moo tax. barki borom Touba ko noonu te xam ne kun bind moo tax. ay ah waay sëñ man man ngay yàq joxe naa joxe naa fi vingt mil vingt mille. kon Aziza salaamaaleykum wa rahmatulah taala. non Ziz nag vraiment. <laughs> waaw. barke Serigne Saliou barke Serigne Saliou barke yaa baax. góor yàlla di yor si góor dimbali jaam rek ma ci mu mosal lay. barke Serigne